téere yi nga xam ne baaxoo nañ di ko ànd ak yéen muy al akhdari wu cheikh abdurahman al akhdari ne cheikh abdurahman mu ngi jàngale masala koo xam ne dafa windeel ab xelaatam lu néew ci mbiruk àddina ana lan mooy atte kookule la mu def moo tax moom jaale képp ku windeel ne fikru xelaatam xalilan ci lu néew ana moo lan la windal xilaatum ci néew mi ne fii umuri dunia ci mbiru àddina ah atte mooy naqasa wàññeeku na sawaabu yoolam wante loolu nag du ko yóbbee mukk nag muy julleem di yàqu wala tabtul di yàqu salaatu julleem kon na loolu mooy masala wa mooy képp koo xam ne windeel na ak xalaatam ci lu néew ci mbirug àddina julleem di yàquut wér na wante yoolam dafay wàññeeku bu fekkee dañ ko doon fay cent pour cent jàppal ni quatre vingt pour cent lañ koy fay wala quatre vingt pour cent wante yolu foo mu wàññi te wa man jaal képp ko windeel na fikru xalaatam xalilan ci lu néew fi umur dunaa ci mbiru àddina kooku naq sa wàññiku na sawaabu yoolam wante wala tabtul du yàq na salaatu julim la mu def ah yàqut julli la noppi na ci loolu mu ngi jàngale masalam koo xam ne da doon am kuy dox ci kanamam mu koy jeñ ana mooy atti loolu la wala koo xam ne dafay sujjoot sujjoote wetug jëm ana lan mooy atte kooku la wala koo xam ne dafay sujjoot sujjoot ci taxañu kaalam wala ci ñaari taxañu kaalam ana leen mooy atte kooku la kon nag wax joojule ay masala moo ci nekk wu ci njëkk mooy koo xam ne dafay julli am kuy jaar ci kanamam mu jañ ko ana lan mooy atte kooku fala shay alayhi ana lan mooy atte koo xam ne dafay sujjoot sujjootee wàllu jëm atte mooy falaché ali ana lan mooy atte koo xam ne dafay sujjoot ci taxañu kaalaam benn taxañu kaal falaché ali ana lan mooy atte koo xam ne dafay sujjoot sujjoot ci ñaari taxañu kaalaam falaché ali masala nga ko wante moom man dafa képp ko puus na képp ko jëñ almachia aji dox bay na ya day fa kanamam ah da ngay dem ci kanam nag danga koy koy taqdim ngir nga jekku firma mooy flash de dara ali di ko war moom mu def loolu benn ngóob aw sajid wala mu sujud ala shiq jabaati ci wetu jëm ma ne da delluwaat taqdim ko ngir nga jekk firma fala shi ali di dara di ko war moom ki nga xam ne dafa sujud ci wetu ak jëm aw sajida wala mu sujud ala tayatin ci taxañu kaalam kooku tamit fala shi di dara ali di ko war waaw da nga koy taqdim ngir nga jekkuwaat firma aw tayatayn wala ñaari taxañu eh, min imamati ci kaalam kooku attee mooy fala chey de dara di ko war képp ku def kenn si ñii ak luñ mënta def fala chey de dara alati ku war ca loolu ah noppi na ci mu ngi jàng masalaam koo xam ne daf doon julli rek wëccu not ko mu wëcc ci biir julli ana lan mooy kooku la nee na wala chey de dara di war fi xala fi xalabatil xay ci not nag ki nga xam ne da doon julli wëccu not ko mu wëcc ci biir julli wala chey ali dara war ko amaa nga déggee ne ki nga xam ne da doon julli looje ci biir julli ba wëccu nag ah julleem yàqu na ah noppi na ci loolu mu ngi jàngale masalam koo xam ne dafay julli gàll ci biir julli xam nga gàll lu koy waral mooy koo xam ne biiram dafa fees mooy rukkoore wala muy sujjóot dal di gàll ana lan may atte kooku kooku tamit ah, wala chaali dara waru ko ci moo tamit wal xalas ak gàll fi salaas biir julli kooku tamit wala chaali di dara di ko war ci loolu maanaam euh, naka aji julli ji bu fekkee ne dafa windeel xalaatam ci lu néew ci mbiruk àddina kooku yoolam wàññeeku na ànd ak euh, sixati sola ànd ak wér ak julli wante lu mel ni le mooy bi la xalaat kooku dafay soriloo ni ka alxujuum muy toroxlu te daf koy bijjil yóbbu ko ci alxafla mooy sàggante képp koo xam ne mu ngi xalaat si biir julli loolu daf koy yóbbu mu soril ko alxushua wante daf koy yóbbu tamit bijjiloo ko alxafla muy sàggan ndaxte xadis anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yenentu mi ngi wax ni wa anna arrajula ala salati alayhi salamtullah daimun wala yuktabu lahu ashruha ida kaana qalbuhu saayan laahiya ko koy yaa ulumuddin boo tamit foofu danga ko fekk muy tere imam Ghazali yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi wax ni wa anna rajulan naka góor ala salaati julam daayiman aji sax wante ci walaa yuktabu defu nga bindal la wuñeel ko ashruha ah, muy fukkeelu ah am na si koo xam ni ah, dulleem fukkeelu sax di nga ko bindal wante iza kaana dem nekk na kaññat iza kaana qalbuhu saahiyan laahiyan kooku boobaa walaa yuktabu lahu ashruha ah. ma ne boo demee ci ihya ulum diin noonu ko fekk wante kazalika boo demee ci ihya ulum diin da nga fay fekk yonent bi wax ne man salla rakaatayni wa lam yuhaddis nafsahu bi cheyin min addunia xufira lahu ma taqaddama min zanbi man salla képp ku julli na rakaatayni ñaar raka wa lam yuhaddis te waxtaanu nafsahu bakkanam bi cheyin ci lëf min addunia ci àddina bi maana mooy euh, windeelu xelaatam ci euh, xelaat ci mbiruk àddina a ah, ko xufira jéggaleef nañ la wu ñeel ko ma taqaddam la jiitu min zanbi ci bakkaar a ah, euh, ko na ah noppi na ci loolu mu ngi wax leeral tamit na koo xam ne dara julli am koy jaar ci kanamam mu puus ko jeñ ko pour mu ñàkk jaar ci kanamam moo tax képp koo xam ne puus na aji romb ci kanamam ah mu nekk ci biir julli la mu def noonu fala shay fii ku ko hadisu abi saidin al xudri mu tuddoon saad ibn malik wante loolu kuniya la abi saidin al xudri yi mooy kuniyaam wante mu ngi tuddoon saad ibn malik radiallahu anhu قال وعن أم أبي سعيد القدري قال وعن رسول الله نوي اللي صلى الله عليه وسلم وعن اللي انتوا يمتنن إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أعبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه yonent bi alayhi salaam nee na isa solla ndem julli na ahadukum kenn si yéen ila shay jëm ci aslëf yasturu góog mu ngi koy suturoo mu ngi koy saatiroo mine naa si nit ñi képp koo xam ne mu ngi julli si yéen samp saatir ah, am koo xam ne dafa bugg a jéggi saatir wi na ko défendre na ko jañ na ko doo fi jaar bu bañee ne na xeex ak moom ah ndaxte kooku seytaane la waxtu woowule kon nag loolu moo taxoon góor gi doon wax na seytaane léeg mu nekk ak nit képp kuy jëf-jëfe yàlla daal ah kooku ci ñooñu la nga bokk wante kuy jëf-jëfe seytaane seytaane rek nga moo tamit isa salla bu julee ahadukum kenn seen ilaa cheyin jëm ci lépp yasturu goog dina ko samp saatir mina naas si niñ ah fa ida araada bu bëggee ahadun kenn an yeji taasa ba jéggi bayna yaday fa kanamam fal yadfau na ko jëñ fa in abaa bu bañee ne fal yuqaatilu na xeex ak moom ah fa innama huwa xamal ne kooku seytaanu seytaan wala yaas billahi ne yàlla musal ci loolu naka noonu la chef yi de dara di nekk ci koo xam ne sujjóot na ci wàllu jëm wala taxañu kaala wala ñaari taxañu kaalaam ah kooku dara waru ko ci la la chef yi ala man sajada ala shaqi jabhatihi aw tayyatin aw tayyatayn min imamatihi faqad allaqa al-Buxaari an al-Anas wante saxaaba ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon di sujjóot وانتي نك سن يخي اك آه، في ثياب سن يريا وعيدين في ثياب ويسجد رجل منهم آه، على امامته كون صحابي نتي دان نديف لولو كون نت كيب كو خامن سجد نتي اك تخاني كالام ولا نياري تخاني كال كوكو فلا علي دار وركوج وعن يقن جال البيهقي ميغنان هذا اصح ما في السجود موقوفا على الصحابه وانه لا شيء في غلبه الغي والغلط في الصلاه. بل عبد الرحمن الاغدري دوحني wa man jaala képp ku windeel na fikru xilaatam xalilan ci lu néew fi umur dunia ci mbiru àddina kooku naka soo wàññeeku na sawaabuhu yoolam wante walam tabutul du yàq solaatuhu jullem noppi ci lool wa man dafa képp ku jëññe puus na almachia aji dox bay na yedee fa kanamam aw sajada wala mu sujuuda ala chiqi jabaati ci wàllug jéem aw sajada wala mu sujuuda ala tayatin ci taxañ min imaamati ci kaalaam aw tayatan wala ñaari taxañ min imaamati ci kaala ah fala chey di dara ali ko war ci loolu le wala chey di dara di war fi xalabatal xëy ci na tag wuccu wal xalas ak gàll fi salaatu ci biir julli loolu la Cheikh Abdourahman al Axdari doon wax noppi na ci loolu mu ngi jàngale masalaam koo xam ne dañ kaa jiite mu juum te li mu juum du wàññi farata ana lan mooy war kookule mu ne wasaawul maam njuum te ku ñu jiite yaxmiluhu dana mu yenu ko al imaam ilimaanam mooy yenu njuntim woowule nga naka ba foofu mi ne ah déedéet mu dee exceptionnel illaa lu dut muy adaatu istisna lu dut an yakuna mu nekk la mu juum min naqsil farida ci wàññi farata bu nekkee nag la mu juum ne wàññi farata la nag ah, ilimaan du ko ko gàddu ndaxte farata dafa diis nag maanaa daal ah njuumte kañu jiite bu fekkee aju na as ci julli lu mel ne ak sunna wala ak ilimaan bi moo koy yenu te dara du war kañu jiite ci loolu ci ak sujud wala mu koy indee batalal matruk wattee ko la mu bayyi a feeg nekku na di ak farata ci farata julli maanaam feeg nekku na ruknan min arkaani sola xeyra fatiha wa bu fekkee ne dafa nekk fatiha na xam ne ilimaan bu fekkee duwut fatiha Eh, ilimaan moo koy gàddul wante bu nekkee farata nag ah, na xam ne ilimaan di ko ko gàddul mooy koy gàddul nag boppam nag wante sim nañ ko xam ne dafa nekk ci ginnaaw ilimaan ilimaan di ko jiite jiite gi jaariya mooy ak jàng ci ginnaaw ilimaan lu may nat bi xasdil quru min al xilaafa bu fekkee nag lool la ci jublu nag kooku ah, simuñ ko dara nekkul amaanati njumte ki ilimaan ah dina war képp ko xam ne am na rakka wu mat sëkk ànd ak ilimaan bu ilimaan juumee képp ko jot ci jullik ilimaan rakka wu mat na xam ne li ilimaan juum dafa koy war kooku solof nañ ko jël ci Abdullahi ibnu Umar radiyallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa mu ngi wax naan laysa ala man xalfa imamin sahwun فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه كوكو الترمذي بيقي جنني ينتهى عليه الصلاة والسلام من وقت عدد وقمنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه واموي كي نتنى ينتبنين ليس ديت على من خلف إمامي كنك إلي ما سون أكجوم آه، فكنا لم يجومنا أعدود آه، أكفرت فإن سحب جوم الإمام إلي ما نفعلي ورنكو وعلى من خلفه وأن ينتجنا بإلمان جومينت Ah, kon nag képp ku ne ci ginnaaw ilimaan te am benn rakka ah, juum teg ilimaan ah, daf lay daf lay war kooku Tirmisi ba yàq yi génne na wante boo demee ci Abdullahi ibnu Bujayna radiyallahu an nee na anna rasulullahi naka yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne xaama fi solati zuhri wa alayhi julusun falama atama solatahu sajada sajdatain wa kabbara fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallima wasajadahuma annaasu maahu makaan ma nasiya min aljulusi kooku albuxaari muslim génne na ko abdullahi ibnu bujayna mooy te nee anna rasulullah naka ndawa yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam fi solaati zuhri ci jullik tisbaar mu lay jàngal bu ilimaan juumee dafay war maamumi xadis yu loolu lay ci ñaari rakka tisbaar wa te wa alayhi julus te toog waroon ko fele ma tam ba mottalee asalaatu julleem sajjada mu sujjood sajjada ñaari sujjood wa kabbar mu kabbar fi kulli sajjada ci bépp sujjood mu ne allahu akbar oo oo jaalisun fekk mbir mu ngi aji toog qabla an yusallima njëkk muy salmi wa sajjada wu maa mu sujjood leen ñoom ñaar annaasu nit ñi maa wa ànd ak yeneen tubi makaana place ak maa nasee la fàtte woon ko mina julus ci a togay loolu Cheikh Abdourahmane al Akhdari di wax ni wa sa'ul maamum njuumte ku yaxmiluhu dana mu yenu ko al imaam ilimaan illaa lu daan yakuna mu nekk min naqsil faridati ci wàññi ak farat lu may ni mu nekk loolu noppi na ci loolu mu ngi jàngale masalam koo xam ne dañ kaa jiite mu juum wala mu gémmantu walla ñu xataleef ko wala su muy rukkoo te loolu du rakka wu njëkk ko ah bu wóoree ne naa jot ilimaan njëkk muy yëkkatu ko si sujjoot ak ñaaril wa ah na rukkoo gaaw dem dabi ilimaan bu ko wóor wóoru ne mën naa sujjoot ñaaril mën naa rukkoo ba dem dabi ilimaan na ko na daf koy bàyyi dem toppi ilimaan loolu lay jàngal nee wa isa saxa ndeem juum na almamumu ku ñu jiite aw naasa wala mu aw zuuxima wala ñu xataleef ko an rukuu walis rukuu wa moom fi xëyri ulaa ci laddu bu njëkk wa fa in tamia bu ko wóoree fi idraaki ilimaan ci jot ilimaan qabla rafiihi njëkk yëkkatug ilimaan ak ci boppam mina sajdatayni thaaniya si su jot ak ñaaril wa a ah ko na rakaa na rukuu a na rukuu dem su jot su eh, wa bu ko wóoree ne ilimaan sujootam dafa gaaw balaa mu fi rukuwa bay siggi bay sujoot sujoote benn ba koy fekk si ñaareel wa ilimaan dina siggi ci sujoot ak wa kon nag na bàyyi rukuwa dem dabi ilimaan ci sujoot ak wa na xam ne rakka woowu nag ah daf koy sànni ndax ndaxte jagut baaxut wala xeexoo tam dab ilimaan ah, bu noppee nag ah kooku laa shakka ne foofu mu sujoot lu ñuy wax baada salaam ndaxte. dafa yokk ci julli wa in lam yat wa in lam yatma bu ko wóorut ne mën naa jot ilimaan moom lay wax ne tarak na bàyyi ruku waru ko wa tabaatam topp imaamu ilimaanam wa qadaamu fay rakkaatan ab rakka fii mawdiha ci barab woowu mu bàyyi woon rukkoo wa te wóor na ko mënutoon jot ilimaan ci rukoo eh, sujjoot sujjoot wu njëkk ba dem fekk ilimaan sujjoot ñaareel wa te mu bàyyi woon rukoo wowule topp ilimaan sujjoot ñaareel wa moom lay wax ne waqadaamu fi rakkaatan ab rakka fii mawdiha ci barab woowule kañ la koy fay baada salaami imaam yi gannaaw salman ak ilimaan lay fay rakka woowule noppi na ci loolu mi ne wa in saa bu juumee ani sujud ci sujud aw zuxima wala ko aw naasa wala gémmantu ata qaama ba jóg al ilimaan ila rakaati jëm ci raka uxra weneen sajad na sujud fi idraak imaam ci jot ilimaan qabla aqdi rukkoo njëkk fasug raka woo wule bu ko wóoree ne moom kat dafa juum si ak sujud wala ñu xataleef ko bee rakk bi dafa ah, ah, sàppe si dafa xat ba ñu ba ñu tànceef ko wala ñu xataleef ko wala mu gémmantu sax ba ilimaan moom sujud na ba jug ba nekk ci beneen rakka mu ne béret ah ne ilimaan kenn mu ngi ci rakka woowule bu ko wóoree ne mën naa sujjóot sujjóotug ñaareel bee siggi fekk ilimaan ci rukkoo te rakka wi du fasu na ko def bu ko wóoree dafay bàyyi sujjóot wa dem dabi ilimaan ci rakka wa balaa muy fasu te bu pare net ilimaan jullee ba noppi na mu fay rakka weneen te mu fay weneen rakka foofule moo tamit ne qabla aqdi rukkoo njëkk fasu rakka wa wa illa من إن تمع بكور في إدراك إلمان تجتك إلمان قبل عقد الركوع عندك فصور فسركوا وإلا بكور نتركون بعيلول وتبعتم تب الإمام إلمان وقد ركع وقد مفي ركع أبرك أغراوين أيضا بتي وحيث قد ركع فمفي ركع فلا سجود سجود علي دكور نعت ربارن اللول كن سجود كتور كن واحد جك جمع وقوني دفور سجود بعد السلام أع سجود كور كلولي nga nekk àbba foonu mi ne lu dul nag muy sikk ci rukkoo wala su euh, ak sujud boobaa nag dafay bàyyi sikk wa indi la muy sikk dafay dafay illaa an lu mu nekk chàkk ndaa ji sikk fi rukkoo rukkoo rukkoo na rukkoo sujud na am ah, na sujud a ba pare sujud baada salaam kon nag li muy jàngale foofu lu mu bëgg a jàngale daal mooy ne xamal ne maamum bi mooy ku ñu jiite kooku sajiinul imaam ci la nekk maana daal dina war ci moom mu topp ilimaan ci mboolem julleem ci xarmalam ci rukuam ci sujootam ci toogaam ci taxawaayam ci sëlmalam ci jëfam lépp lu muy jef ci julli lu may li nga xam ne du lu ñu yoonal këm toog ci rakka wu njëkk wa ak rakka ñetteel wa ak muy taxaw jëm ci juróomeeli rakka wala muy sëlmal njëkk julli di mat foofu de sañu fay toppi ilimaan nag غير حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإن كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد قناني جانغو حديث léeg-léeg da ngay gis koo xam ne dañ koy jiite ilimaan rukuwa mu des sa rukuwa wa ilimaan si gise sujud wa muy des sa sujud di wan ne ilimaan maa la gën a ragal yàlla man koy toroxlu laa mën a addu noonu dangaa jàngur wante boo jàngoon addi yenentu mooy ilimaan bu si gise sujud da nga koy topp ndaxte mooy sa ilimaan loolu la yenentu wax ne innama xamal ne joyee la def na al imaam ilaan li tamma ngir mu jiite bii ci moom li tamma ngir mu mattali bii ci moom fa in kabbara bu kabbare fa kabbiru na ngeen kabbar ilimaan dañ kaa def ngir mu ah, mottali ci yéen ngir mu jiital leen bu kabbaree kabbar leen bu sujootee sujoot leen bu yëkkatee boppam ngeen yëkkati seen bopp bu waxee sami allahu liman hamidahu na ngeen wax rabbana wa lakal hamd wante ilimaan siggi ci rukkoo nga des ca rukkoo ba mu siggi sa sujoot nga des sa sujoot ba na danga da nga jàngu da mu xamu rek kooku muttafaqu kon loolu moo tax nag lii moo tax lu war la fali aadal mujib wante musannif di ci Abdurahman al Akhdari na bu fekkee ne ku ñu jiite dem nekk moom ku ñu jiite ci rakk ñaareel wa wala rakk ñetteel wa masalan tere ko walis rukuwa ci njuumte wala ci ak gémmintu wala ci ak xataleef ba ilimaan ba ilimaan sopp ba mu moom ilimaan jëm ci sujjóot mu not ko ci ak njortoom ne dina jot ilimaan njëkk mu yëkkatu ko boppam ci su jot ak ñaareel wa ah na rukkoo te topp bu naagoo na ci jot ilimaan boobaa dafay bàyyi rukkoo tam topp ilimaan mu sànni woowu rakka mu indi weneen rakka nga wattee ko rakka woowule gannaaw sëlmalek ilimaan ngir wàññi ñaari rakka tey ne asaasiyatayni minha te mooy a rukkoo waraf amin wante bu fekkee jot na ko mel noonu ci sujjoot ngir gémmantu wala wala njuumte wala tëncaleef ko wala xataleef ko ba ilimaan jug jëm ci weneen rakka mu wóor ko mën naa jot ilimaan njëkk fasugu rakka wa na su joote topp ilimaan bu fekk wóor ko ne mën naa jot ilimaan ci e, ci mën naa su joot dem fekk ilimaan te rakka wa du fasunat bu ko wóorul na sànni rakka woowu muy rakka naaxisa woowu mu indi weneen rakka ci barab woowu gannaaw sëlmal ak ilimaan wante ñaari xaala yi yëpp nag wala sujuuda alayhi fi xaalatayn ngir lan li ajli ziyaada al waaqia ngir na dolli gi nga xam ne aji tàbbile ci moom ndaxte li anna sahwa al maamum xaalatu al qudwa yaxmiluhu anhu ah, kon nag ku ñu jiite ci jamono ak roywaay ko ga ilimaan koy yenn lu may ku wàññi ak farata ngir xadisu abdullahi ibnu umar wu jiitu mu waxoon ne laysa ala man xalfa imaami sawun fa in saal imaamu fa alayhi wa ala man xalfa at-tirmisi wal bayhaqi loolu nag ndem nekk na ci ba muy fay na di sikk ci rukku wala sujud ak nag fa yajudu baada salaam dafay sujud baada salaam loolu lay cheikh abdurahman al axdari di wax nii wa isa saha ndem juum na almaamuum ku ñu jiite au naasa wala mu gémmantu aw zuuxima wala xataleef ko ani rukuuca walis rukuuc te woo moom fi xeeru ula ci du bu njëkk wa fa in tamia bu ko wóoree fi idraaki imaam ci jot ilimaan qabla rafihi njëkk yëkkatugu wa min sajjadati thaani si sujjoot ak ñaaril wa rakaa na rukkoo wa laxiqoo tam dab ilimaan wa in lam yatma bu ko wóoru nag tarakana bay a rukkoo rukkoo woowu wa tabaatam topp imaamahu ilimaanam وغدا ركعة فنففعي ركعة في موضعها كبربوة بعد سلام إمامه قلنا وقد مفي ركعة ركعة في موضعها كبربوة وله بعد سلام إمامه قلنا وسلم الإمام نبتنا جلون وإن صعب جومي عن السجود والسجود أو ظيم ولا قتل لفكو أو نعز ولا مقيم حتى قام بجوك الإمام إلمان إلى ركعة جمت ركعة أخرى سجن السجود ان انطمع بكووري في إدراك الإمام بكووري تجتك إلمان قبل عقد الركوع نيكو فاسق ركاو وإلا بكفك وورو كنت تركو نكبي وتبهتم تب الإمام إلمان وقضى ركعة ففي ركا أغرى وينين ولو قضى مفي ركعة ركا أغرى وينين أيضا بتي وحيث قضى ففي الركعة ركانت fala sujudi sujud ali di ko war illa lu an yakun mu nekk shakkan di sikk fi rukuu ci rukuu ay sujud wala sujud kooku fala fala budd mu dara war ko te muy sujudu qabli noppi na ci loolu mu ngi jàngale masalam koo xam ni a dikkal na ko lenn ci ak yenti yenti yi nga xam ne aju lorle te mu nekk ci suuf te mu jéem a xeex ak moom berey ko ana la may attee ku def loolu la lay wax ne waman jaatu képp ku dikkal ne ko aqrabun jiit aw xayatun wala jaan ah fa tam ray ko mën a bërét kurti kurti pour ray ko fala che di dara ali di war ci lam def nga ne ko ah ba faw mi ne illaa lu dut an yatula mu yàgg fialu jëfu kirti kirti ray ga ah, lu dut mu yàgg rek aw yastadbir wala mu dëddu sax xibla te xibla ga wante jëf ji yàggul wante dafa du mooy xibla kon tamit fa inu nag moom yàqtaa julli ga dafay yàqu dafay dagg julli ga nag moom lay wax ne képp koo xam ne dikkal na ko ak jiit wala ak jaan mu rey ko kooku dara war koo ci lam def lu may na jëfu jëfu rey ga yàgg wala mu dumuy ak xibla ga boobaa ne julli ko dafay dog noppi na ci loolu mu jàngale koo xam ne dafay sikk nii ndax ci witar laa nekk wala ci ñaari rakka nu muy def ah nu muy def daal mooy dafay daf koy def ñaari rakka shafa te bu noppi dafay sujjoot di salaam loolu lay jàngale wa man shakk képp ku sikk na hal huwa ndax moom fil witar aji nekk la ci witar te witar dina la ko jàngal witar benn mooy benn rakka woo xam ne yaa ngi ci jàng fatiha euh, ixlaas euh, almuawazatayni muy falaq naasi loolu mooy witar wante euh, shafaa nag mooy tollanti mooy ñaar rakka wi nga xam ne rakk wu ñekk wa yaa ngi ci jàng fatiha suratul aala rakk ñaarewul fatiha suratul kafirun bu fekkene fay dafay sikk ni ñaari rakka shafa la nek wala ñaar ben wala witr la nek nag ah jaala na ko thaniyata shafa muy ñaar rakka shafa wa sajada mu ba'da salam ba'da salam salaam su sujootee baada salaam ba noppee suma ma awtara topp mu witr nag ndaxte Yonent bi sallallahu alaihi wa sallam wax ni def len sen mujjante julli muy witr nag ijalu aqir salawaatikum witra fa inna allaha witrun yuhibbul witr aw kama qaal noppi na ci loolu mu ngi jàngale masala koo xam ne dafay wax ci diggante shafa ak witr wante dafa juum ana la may attul waaye mu koo xam ne dafay wax ci diggante shafa ak witr juumu sa wante moo tey wax ja ana la may atte kooku le loolay jàngale ne wa man takallama képp ku wax na bayna shafa diggante safa wal witr ak witr saahin mbirum ma aji juum fala shay'a ali de dara di ko war ci wax jooju mu wax juum ci diggante shafa ak witr wa in kaana bu nekkee amidi mbirum ma aji tey ko nag bu fekkee dafa tey wax jeneen kuréel sibib nañ leen def wante wala chef de dérali di ko war ca lu wax jooju la mu tey maanaa daal cheikh abdurahman al akhdari bu ko wax daal mooy képp koo xam ne dikkal na ko as ci loo xam ne yent yent suuf la tamuy lore lu mel ne ak jiit wala ak jaan mu soxloo ci rey ko ah fala cheikh ali di dara di ko war ah feeg bëriwul na ci loolu wante bi la soxlawoo ak mu jéggi doye wa wala mu war ko ak dëddu xibla wa kon nag julli gi dafay dog bu fekkee am na benn ci yooyu le xataa salaa mooy julli gi dafa yàqu wa yujaawizu alxadda aw yastalzim istidbaar alqibla fa in asala waaxidu minhuma xataa salaa te wa aada dafay baamtu julli googu le ana lan loolu lan mooy cëslaayam ci njàngalem Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xadisu abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Yonent bi nee na uqtulu aswadayni fi sola alxaya wal aqrab abi hurayra radiallahu anhu nee na Yonent bi sallallahu moo ne uqtulu rey leen al aswadayni ñaari ñaari ñuul yi fi sola ci biir julli bu ngeen gisee ñaari ñuul yi ah, ci julli na ngeen ko rey ومن إنك لا إنك لن مي الأصوبين يا رسول الله من الحي مي جان والعقرب الجيد كان له المي تسلع ومن جاءته عقرب أو حية فقتل فلا شيء عليه كوكي ينتبه عليه السلام وكدلي وعند كيف كو خمنا سكنا ندخ من تويتر أم تنياري الشفاء لنك نقدم من ياري الشفاء ويسجد بعد السلام ngar ngir jamtu lo ak dolle ko على قاعدة البناء على اليقين عند الشك في عدد الركعات ركعت ركعت غير حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ثم يسجد سجدتين وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد وين رواية فانا نموت لي جلك ستوب مسلما topp mu sujjoot wante boo demee ci xadisu Abdullahi ibnu Jaafar marfuan muy xadis boo xam ne dañ kaa yëkkati ba ci Yonent bi Yonent ne man shakka képp ku sikk na fii salaat si biir julli fal yasjud na sujjoot sajdatay ñaari sujjoot baada salaam nga te mooy baada salaam kooku Ahmad gi ne ko Abu Daawud wa Nasaayi wante boo demee ci xadisu Anas radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yanzu na ja shakka ne msikin ahadukum kan sai fi salati bir julem falam yadri qamut eh, falam yadri qam isnayn ñaar salla ala julli aw thalatha wala ñett rakka ala julli falyulqina sanni ashakka sikk wal yabni mujju tabanak ala yaqin ci kóolite rawaaw ba yàqi yanzu ay sala ne képp ku sikk na ci yéen ci julleem ndax ñaar rakka ala julli wala ñett rakka ala julli na sànni sikk wa te tabax yaqinam nga Eh, eh, tabax ko ci yaqin naka képp koo xam ne wax na ci eh, wax joo xam ne aji juum na ci diggante safa ak witr kooku fala siyaal yi wa in taamadahu makruh bu fekk bu ko tayee nag kooku dañ kaa sit loolu Cheikh Abdourahman Al-Akhdari di wax ni wa man jaatu képp ku dikkal na ko aqrabun jiit aw xayatun wala jaan fa qatalaa tam rañ ko fala siyaal di dara ali di ko war illaa an yatula lu du mu yàgg na fi'alu jëf ja أو يستدبر ولا سكو ددنا على القبلة القبلة أنكم يقطعون في دقنا ومن شك كيف سكن هل هو نحمهم في الوتر أجنكلة وتر أو في ثانية الشفي ولا أجنكلة نيار الشفا جعل نكر ثانية الشفي نيار ركا شفا وسجد مسجود بعد السلام بعد السلام ثم أوتر التوب وزر ومن تكلم كيف عن بين الشفا دقن الصفا والوتر وتر ساين برمع جوم fala shadid dara ali di ko war wa in kaan bu nekkee na amida mbirum aji tey ko nag kuri a sib ne lam de wala shadid dara di ko war a noppi ci loolu mu ngi jàngale koo xam ne masala woo xam ne ko ñu jiitu nag bu fekkee jot na ànd ilimaan lu néew ab rakka lan mooy attee kukule moom la wax wal masboo ko ñu jiitu nag in adraka bu jotee maal imaam ànd ilimaan aqalalu néew min rakkaatin ci rakka bi maanaam amul amul ci ilimaan ak rakka kooku falaa yajuuzu sujuud maawu il ànd ak ilimaan laa qabliyan wala baadiyan laa qabliyan su sàggan ko jag qabliya wala baadiyan su sàggan ko jag baadiya képp koo xam ne jiitu ko mu ñëw ànd ak ilimaan xanaa dafa fekk ci ilimaan ci sujuud wu mujj wa moo xam ñaari la sujjood wala sujjood bu ah, njëkk wala a ah, kon na sujjood da ko war a ànd ak ilimaan bu fekkee ilimaan xable la war a sujjood wala baadiye la war a sujjood kooku da ko war ci loolu le nga ne ko na jàngut ba sujjood ànd muy def mu ne fa in sajid ba sujjood maa wa ànd ak ilimaan batala yàqu na salaatu julleem a ah, ko nag julleem yàqu na noppi na ci loolu amaa ne koo xam ne dafa jot ci ilimaan ab rakka wu mat sëkk wala lu ëpp wenn rakka ahlan ma yàttee kokku la nee na way na adrak bu jotee rakkaat na ab rakkaa kaamilat na wada aji mat aw akasara wala lu ëpp rakkaa sa أحد سجدنا سجود ما وإن عندك إيمان القبلي وكج قبلي وآخر ميغ البعد وكج بعدي وفك إيمان سجود قبلي دال مم مقال تكم دفع سجود قبلي وعندك إيمان بفك بعدي لن دفكو ييغ بمطل جلهم بنبينت سجد سجود بعدي هو مريان حتى يتم بتم مطل صلاة جلهم فيجد مسجود بعد سلامه جناك سلم لهم مدل سجود البعدي وهو ميكج بعدي وقمنا إيمانك ودفع nga ne ko bu fekkee jàng na bu sujjoot ànd ak ilimaan ci baadiya woowu ne mu ne fa in sajid bu sujjootee maanaam imaam ànd ak ilimaan amida mbirum ma aji tey ko batale yàqu na salaatu julli wante bu fekkee tey wut sujjoot baadiya woowu and ak ilimaan dafa juum kooku ne boobaa dafay sujjootaat baadi salaam mu ne wa in kaan bu nekkee saayin mbirum ma aji juum sajid na sujjoot salaam baadi salaam moom lay sujjoot ah noppi na ci loolu wa isa saabu jume al masbu ku ñu jiitu bu fekkee ku ñu jiitu dafa juum baada salaami imaam gannaaw salman ak ilimaan ah ilimaan julli na ba noppi na moom ku ñu jiitu muy fay julleem far juumaat foofu ah, anal mooy attee kooku la foofu moom kal musalli comme koy julli wax dëgg moom dong rek ah nag xool na moom dong rek bu fekkee dafa sujjoot juum si yokk ah daf koy sujootal bu fekkee dafa jëm ci wàññ daf koy sujootal rek mu ne way jarat wa in rattaba ndem a ala masbuuqa ci kuñ jiitu baad yin ko jog baad yi min jihaati imaami ci wàllug ilimaan wa qabliyin ko jog qabliya min jihaati nafsi ci wàllug boppam nag ajizaawu doy na ko al qabli ko jog qabliya ko jiitu bu fekkee ne ilimaan dafa waroon su joot baad te am na ci ilimaan wenn rakka wala lu ëpp ñaari rakka ah sujjoot ba daf koy war te sujjoot woowu waxoon na ne dañuy bàyyi ba mottali jullee mu soog a sujjoot baax di woowu wante ba mu doon fay nag mu def na loo xam ne xabliye la woo xam ne min jihaati nafsi yi te ñaari sujjoot yëpp dajee na ci moom nu muy def ah, loolu la jàngale woon sa njëlbeen ak buntu wa wa man zaada wa naqasa ah sajada qabla salaam ah loolu moo dikkaat file mooy masala wile wante wii ci wàllu ilimaan la wii ci wàllu boppam la kon nag daf koy day mu sujjoot alqabli maanaam naka koo xam ne koo xam ne jiitu nañ ko te jotu ànd ilimaan wenn rakka wu mat duñu njort ci moom ak atteeg mbooloo te du dugg na ànd ak mbooloo ci la nga xam ne toftala na ci moom fi ma rattaba alayha min sujjoot alqabli ci li nga xam ne toftale na ci sujjoot a xabliye wala sujjoot a baadee ngir ñàkk jot gi mu ñàkk jot ab rakka boo xam ne atte nañ ko ci loolu bu fekkee sujjoot na ànd ak ilimaan jullem yàqu na amaa na koo xam ne jot na ànd ak mbooloo mu rakka wu mat sëkk wala lu ko ëpp dañuy njort ci moom atteeg jamaa te daf koy war woowu la njumte ki ilimaan ba faw nag bu toftalee moom ilimaan bu toftalee moom ilimaan sujjóot qabliya kon daf koy topp mu sujjóot ànd ak ilimaan lu koy yaxal mooy xadisu abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة yéen itam alayhi salaam nee ne idaa jëtum bu ngeen dikkee ila salaat jëm ci julli wa naa nu fekk ñun sujud ñu ngi ci sujud fas juru sujud leen ولا تعدوا وانت بولين كلم نشر ميدرا بولين كلم داتا مولين راكا ومن ادرك كب جنا ركوع ركوع فقد ادرك جنا صلاه جلين كوغا وداود اغينينكو وانت ابن خزيمه ويرل نواخ جوجله وانت بودي من عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على من غلف غلف الإمام سهو fa in saha fa alayhi wa man xalfa kooku bazaar ba yàqi daarul xutni génn na ko amma ne koo xam ne dafa toftale ci ilimaan sujoot ak baadi yu ngir àtteem kooku du sujoot ànd ak ilimaan dafay yéexee sujoot jëm ba juleem mat nga topp na mu sujoot baada salaam woowule bi maana dafay muñandiku ilimaan def sujjóot baada woowu ba sëlmal mu soog a julli mottali julleem bu noppee sujjóot baadi woowu bu fekkee wuutee naa ne ba sujjóot ànd ak ilimaan baadi woowu te moo ko tey julleem yàqu na amaa bu fekkee na kooku julleem ci jamono bi muy fay gannaaw sëlmantek ilimaan këm kuy julli moom dong kooku ilimaan du ko yenul woowu njuumte ngir dog gi nga xam ne xudwa wi dagg na ko ci diggante moom ak ilimaan bi mujarrade salaam yi ci rafleg sëlmal wa moo dog al xudwa woowu kon nag lépp loo xam ne juum na ko gannaaw ah, sëlmal ak kooku kal munfaridul musalla bu fekkee dafa toftale moom ku ñu jiite sujjóot ak baax ci ji ak wàllug ilimaan woo xam ne jiitu woon na eh, ilimaan def ko mu doon julli na def sujjóot ak xable woo xam ne ci wàllug boppam la sujjóot ak xable woo doy na ko walis ak sujjóot baax di woowu la wala ci Abdurahman al Akhdari di jàngale ne wal masbuqu ñu raw in adraka bu jotee maali imaam ànd ak ilimaan aqallu gën a néew min ci rakka falaa sujud falaa yasjudu sujud maa wa ànd ak moom laa qablin du sàggan ko jag qabli wala baadin sàggan ko jag baadi fa in sajjada bu sujjootee maa wa ànd ak ilimaan nag batalat yàqu salaatu julum noppi na ci wa in adrak bu jotee rakkaatan ab rakka kaamilatu bu mat sëkk na aw akthara wala lu ëpp rakka sajjad na maa wa ànd ak ilimaan al qabliya ko jag qabli wa axar mu yéexe al baadi ko jag baadi hatta itam ba ta mu mottalin salaatu julleem fa in sujjoot baada fa in sajada bu sujjootee maalu imaam mi ànd ak ilimaan ne xaamida mbirum aji tayyu ko nag a batala yàqu na salaatu julle wa in kaana bu nekkee saahin mbirum aji jumlat sajad na sujjoot baada salaam baada salaam noppi ci loolu wa isa saa bu juumee almasbu ku ñu jiitu baada salaam yi imaam gannaaw salmal ak ilimaan foofu moom kal musalli kam kuy julle ren wax daw moom dong wa in ratta wa in tarattaba bu toftaloon ala masbu ku ñu jiitu baada yu ko jóg baada yi min jiyaati imaam yi ci wàllug ilimaanam wa qabli yi ko ja mi min jihaat nafsi ci wàllu boppam ajzaawu doy na ko al qabli yi ko ja qabli woowu la noppi na ci loolu kon nag maa ngi lay dëngal e, mu ngi wax ni mu ngi indi weneen masala ne képp koo xam ne dafa fàtte rukkoo mu fàttali ko si sujjóot wa ana nu muy def ana nan lay def da lay wax ne wa ma nasee képp ku fàttali ne rukuwa rukuwa waroon rukuwa fàtte rukuwa ne bëre dem di sujjóot wa tazakkar mu fàttali ko fi sujjóot nu muy def daa mooy rajaa ne dellu qaayiman mbirum ma aji taxaw na jodd waaye saxaaba dinañ sopp lawu ñeel ko an yuidi mu baamu cheyan lef min al qiraa njàng ma su ma yarkaaw topp mu rukuwa waaye jël mu sujjóot baada salaam baada salaam ndax dafa yokk muy dem ak dikk ga képp ku fàtte ne rukkoo fàttali ko si sujjoot dafay delluwaat taxaw na jodd wante sopp nañ mu jàng aslëf soog a rukkoo e, bu noppee mu sujjoot baada salaam ndax dafa yokk si julli wala yoo xam ne woo man na see képp ku fàtte ne rukkoo rukkoo wa tazakkara mu fàttaliku fi wa tazakkarahu mu fàttaliku fi sujud si sujud wa rajaana dellu qaayima mu aji taxaw na jodd wa yastahab dinañu soppala wu ñeel ka an yuidi mu baamu chan lëf min al qiraat ci njàng suma yarko topp mu rukkoo wa yajid mu sujud baada salaam baada salaam wa man nasiya képp ku fàtte ne sajdatan sajdatan benn sujud sajdatan sujud waahidatan bay benn wa tazakkaraha mu fàttaliku baada al qiyaam gannaaw taxawaay wa gannaaw ba mu jógee rajaa na dellu jàllale mbirum mu aji jëkki wa sajada mu sujuud koo xam ne dafa waroon sujood ñaari sujood mu sujood benn warat fàtte wenn wa jug taxaw jug taxaw mu fàttalu ko dafay dellu daa ji toog sujood lool la nga nakaa ba foofu mu ne illaa lu daan yekkoon mu nekk xat jalas di toog bu fekkee ne ba mu sujootee wenn sujood ba dafa toogoon foofu mel ni ku sujjoot ñaari sujjoot soog a jóg kon nag toogaay woowu du ko bantuwaat moom la yoon illaa lu an yëkkunu mu nekk xat jalasa di toog qablal qiyaam njëkk taxawaay wa kon ne falaa yeddu baamte al juluus toogaay woowule natt na ci loolu mu ngi jàngal masalam koo xam ne dafa fàtte ñaari sujjoot ana nu muy def wa man na si képp ku fàtte na sajdatayni ñaari sujjoot dafay rot mbirum daa ji sujjoot te du toog foofu la wante yii yëpp masala yii bépp boo xam ne ah dellu na def loolu boo noppee dafay sujjoot baata salaam ngir yokk gi am mooy dem ak dikk ko wala nga jotee sujjoot wa te du toog waaye jël mu sujjoot fi jëmee zaale ci mboolem yi yëpp baata salaam baata maanaa képp koo xam ne fàttaliku ne rukuu fekk moom mu ngi ci sujjoo dafay dellu eh, di aji taxaw na jodd ci lu gën siiw soppi na ñeel ku mu jàng njëkk muy rukuu at ak eh, soppilik sunna topp mu lu jëm ci rukuu lam fàtte woon naka képp koo xam ne dafa fàttali ko ak sujjuud gannaaw ba mu taxawee na jodd dafay dellu di aji toog mu sujjood ko bu fekkee nekkutoon na di toog gannaaw gannaaw na sujjóot ak njàkk wa njàkk mu taxawaay woowule naka noonu képp ko fàtte ñaari sujjóot dafay lunku ñeen leen ñoom ñaar mu lunku ñeel leen ñoom ñaar ci waxtu mu ko fatte di aji taxaw na jodd na bi maanaam képp koo xam ne fàtte na ñaari sujjóot in xatta mu sippik la wu maa ñeel ñoom ànd tazakkuri waxtu mu ko fàttaliku xaay mbirum di aji taxaw te bam dafa taxaw ne jodd fàttali ko dafay sippeeku ne delluwaat dem ci ñaari si yooyu la wante du fa toog njëkk wala ay jëli toog xabla wu maa njëkk ñoom ñaar dafay sujjoon ci ñaari xaale yëpp gannaaw ba mu sëlmalee ngir dolli ga على قاعدة قاعدة وقمن حديث اليدين وقيامه عليه الصلاة والسلام إلى خامس هذا إذا تذكر السجدة أو السجدتين قبل عقد الركعة الموالية وأما إذا كان بعد عقدها فقال فيه رحمه الله تعالى تي إن شاء الله مسألة ولن يدقوا ألف كنا معلي رزمي ngi lay وين قمني جلنا nga wa man jaala képp ku windeel ne fikru ak xalaatam xalilan ci lu néew fii umuri dunia ci mbiri àddina naqasu wàññeeku na sawaabu yoolam walam tabtul du yàq na salaatu julli noppi na ci loolu wa man dafa képp ku jëñ almaashi aji dox bayna yaday fa kanamam aw sajada wala mu sujud ala shiqi jabaate ci wàllu jéem aw sajada wala mu sujud ala tayatin ci taxañ ah, min imaamati ci kaalaam aw tayatan wala ci ñaari taxañ min imaamati ci kaalaam fala asha di dara alayte ku war noppi na ci loolu wala chey di dara di war fii xalabatal xëy ci not ak wucc wal xalas si ak gàll fii salaat si biir julli kooku tamit dara waru ko si noppi na ci loolu wa saawul maami njuumte ko ñu jiite yaxmilu dana mu yenn njuumte wa al imaam ilimaan nga ne ko ba foofu mi ne illaa du an yëkkuna mu nekk mi naqsil farida ci wàññi fare noppi na ci loolu wa isa saa andem juum na al maamum ku ñu aw naas wala mu gémmantu aw zumi wala tanjeef ka an rukowa wala si rukowa te woowu moom fi xëyri ula duut ci bu njëkk ba fa in tamee bu ko wóoree fi idraki ilimaan ci jot ilimaan qabla rafi njëkk muy yëkkatugu min asajdati thania si su jot ak ñaari raka an rukowa te dabi dabi ilimaan wala iqatam dab wa in lam yatma buko wóor tarakna bay a rukkoo rukkoowa wattabatam toppi imamahu ilimanam wa qadamu fay rakkaata ab rakka fi mawdiiha ci barab woowule baada salaami imamihi gannaaw salmalak iliman noppina ci loolu wa in saha bu juume ani sujud wala sujud aw zuumi wala wala qatleef ko aw naasa wala mu gémmantu xata qam ba jóg al imam iliman in tamia bu ko wóoree fi idraaki imaam ci jot ak ilimaan qabla aqdi rukuwa njëkk fasal rakk wa wa illaa bu ko wóor na tarako na bàyyi loolu wa tabee tam topp al imaam ilimaan wa qadaa mu fay rakkaatan ab rakka uxra weneen aydan ba tey وحيث قد فم فيا ركعة ركعة فلا سجود سجود علي دكور أنا كبفو من إلا لود أن يكون منك عليه السلام تلا شك أن في ركوع ركوع سجود ولا سجود نبنا كلون wa man jaatuhu képp ko dikkal na ko aqrabun jiid aw xayatun wala jaan faqad laa tamray ko fala chadi dara ali di ko war nga ne ko ba foofu mu ne illaa luy an yaqtuula mu gudd fialuhu jëf ja aw yastadir wala mu dëddu al qiblata qibla wa fay na ko ma yaqtoo dafay dagg julli noppi na ci loolu wa man shakka képp ko sikk na al huwa ndax moom fil witar aji nekk la ci witar aw fi thaniyati shafi wala aji nekk la ci ñaareel shafa jaala na ko def thaniyata shafi ñaar rakka shafa wa sajid mu sujud baada salaam baada salaam thumma awtar topp mu witar noppi na ci loolu wa man takallama képp ku wax na bayna shafa diggante safa wal witir ak witir saaxiyan mbiru ma aji juum fala shay di dara al dikk war wa in kaana bu nekkee amin da aji tey ko ne kuriya sib nañ la mu def wala shay di dara al dikk war noppi na ci loolu wal masbuq ku ñu raw ku ñu jiite ku ñu jiitu in adrak bu jotee maan imaam ànd ak ilimaane aqal lu gën a ni aqal lu gën a néew min rakkaan ci rakka kooku falaa yasjudu sujud maa wa ànd ak ilimaan laa qabli du sàggan ko jag qabli wala baadiyan du sàggan ko jag baadiya fa in sajada bu sujudee maa wa ànd ak ilimaan nag batala yàqu na salaatu julleen wa in adrak bu jotee rakkaata ab rakka kaamil wala aji mat sëkk aw akthar wala lu ëpp rakka sajanu sujjoot maa wax dëgg ilimaan al qabliya ko ja qabliya wa axar mu yéexee al baadiya ko ja baadiya nga ne ba keñ xataa yutim ba tamu mottal ne salaatahu julleem fa yasjudu mu doog a sujjoot baada salaami gannaaw sëlmalam mu daal di sujjoot al baadi woowule fa in sajada bu sujjootee maal imaam ànd ak ilimaan na amida mbiru maaji tey ko nag salaatu julleem noppi na ci wa in kaana bu nekkee ne saa juum te sujjóotu baadee dañ ne ko julil ba noppi nag yow mottile su julli ba noppi nga sujjóot soog a sujjóot wante mu juum ànd ak ilimaan ah kon nag ah, julleem yàquwul ah dañu xam ne dafa juum dafay continuer julleem bu pare sujjóot baada salaam rek sa jëne sujjóot baada salaam baada salaam noppi na ci loolu wa iza saa bu juumee almasbuuku ñu jiitu ku ñu jiitu bu fekkee ne wa iza saabu jumi almasbu ku ñu jiitu baada salaami imaam gannaaw salmal ak ilimaan foofu moom kal musalli kam koy julli wax daw moom dong wa in tarattaba bu toftale ala masbuuq ci kuñ jiitu baadi yun ko jóg baadi yun ko jóg baadi yu min jihati imaam ci wàllu ilimaan wa qabli yun ko jóg qabli yu من جهة نفسي جو على بابم أجزاء ودينك على قبلي كذا قبلي هو نبلا كلون نين هو من نسي كبك فاتنا ركوع ركوع وتذكره مفات ركوع في سجود في سجود رجعنا الدل قائما بالما أجتغون الجد ويصعب الصبنا لو نيالكو أن يعد مبام شأن لف من القراءة الجنة ثم يركو توب مركوع ويجير مسجود بعد السلام جنابهم سلمين مسجود بعد السلام نبلا كلون wa man nasiya képp ku fàttali ne sajadatan ab sujjood waahidatan bay benn wa tazakkaraha mu fàttali ko sujjood woowu baadal qiyaam gannaaw ba mu jógee rajaane jël jaalisan mbiru mu aji toog wa sajada mu sujjood il mu sujjood ko illaa li an yakun mu nekk xat jalasa di toog qabla al qiyaam njëkk taxawaay wa njëkk jóg ga falaa yu'addibu baamtu al juluusu toogaay wa noppi na ci loolu wa man nasiya képp ku fàttali ne sajadatan ñaari sujjood xarra na rot saajida mbiru mu aji sujjood wala mi jilis te bu mu toog ويجد مسجود في جميع ذلك ولا ويجد السجود في جميع ذلك تنبولم يجب بعد السلام بعد السلام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه يعني يلا مي ديغ توب داف نيكو داف لين الحمد لله دعوان واخرها والحمد لله من حين الى حين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته seen bi leen di gingi